mais tey tey tey tey tey ngeen tey ko même ses avocats n'ont pas accès à lui ses ses camarades de coalition mënuñu fa dem son service euh, euh, communication mënuñu jot ci moom. mais non loolu loolu loolu c'est des mesures préventives c'est de l'anticipation l'État devrait prendre fitna moo waral li am li xew tey fitna bi mooy nga jógee Casamance di marche ut si Dakar nit de nga ne doo doo taxaw tàggoo woo yëglu woo loolu moo gën a grave. moo tax ngeen jaaxle doole jàpp ko indi. mais non du jaay doole loolu dañ ko aar. dañ ko aar c'était dangereux daanu na ñaari yoon lui-même il est affolé il tient plus. ah oui il subit la pression il peut plus. pression ah. bi ngeen ko teg. non bi mu teg boppam. parce que fa mu dem moo fa yóbbu boppam yóbbaat fa boppam. c'est un homme qui a peur en ce moment loolu nga gis. non c'est un homme qui est abattu qui a peur. et qui est fini et qui n'en peut plus. et il s'est cogné lui-même à maintes il n'a pas un problème avec l'État il n'a pas un problème avec le président Macky Sall il n'a pas un problème avec le c'est des affaires purement privées pendant devant la justice. Notre pouvoir n'en profite pas du tout. On n'a même pas ce